xam nga kii ngay séen nii muy ñëw defe naa bu waxee ci Luc Nicolaï en ko war na cee wax muy yaawu jàll defe naa tey ab ab jàkkaarloo donc ñaari mbër yu waa daje kese gisante mu mel ni arène nationale balaa muy sa combat loolu mhm. loolu noo ko gisee laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba ma sante sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom maxrim axlaa sant sama sëriñ Ablaye Wade di sant As Ndaw borom maan di sant nag Youssou Ndour nga xam ne ne dasa c'est le meilleur musicien xam ñu ñoo ñëpp maa leen sant baax di leen gërëm di sant waa Sénégal ak Seydou Diallo ay see sam sam 3 seen président xam nga sama lonkoor sama lépp la ak ministre employé Souleymane Soumaré ak waaw xam nga li am fii tey dafa nekk loo xam ne doy waar la lig ñu waa déggalum wax xanaa am na loo xam ne jaru ko fi bu rafetoon ñëpp toog mu rafet waaye lu ñaaw du ko bëgg tey gis doomu aadama li fu dar si ay doomu aadama kenn xam lu mu lañ ah kenn xam lu mu demee te buñ commencé coow li courte gauche ba mën naa dépassé moo tax ligue saa su ne la koy fay lii nii dina si dugg si alhamdulilah rabi alamin jeexaloo ko dina si alamin dina réussir nag mais nag sant yàlla moo dañoo toll seen diggi ndënd déggoo ma de ñoom ñaar ay jantal lañu bu ñu nee dara ñëpp leen seen moo tax lii nii mënu war a mën a yomb tey waaw kon boog dama ñaan yàlla lii yàlla na ko yàlla réussir waaye nag yamb moo tax ligue ko laay ne ma yaawu labali fas ma ne ko léegi mi ne mën na ma ko labali fas sax taxul fasaraw fasa nga sa kanam waaye nag mi ne mën na ma ne ko ñam naa benn bàyyi na mosoo ko dégg waaye yemb day ñëw. da di bëri ci combat bi. incha allah ba am na ndogalu suñu borom. moo yow doo bàyyi yemb yow li la yemb daan daa mel ni bëri na. six fois laa ko daan moom mooy soog daan barki démb. man nag lay ba maar ca gason ba. da ngaa fàtte fu ma. da ba bu mu maa ko daan combat ceeg Baye Mandione. jour combat Koña Boy Baol mu dër mu daanu. mu daan ko Issa am na daan ko Alassane Diouf daan ko Amadou Bari mu daan ma daaw jëj Louga te daaw jëj Louga boo gisee mu def gasaw meeg moom moom la yow animé ma làmb ji mu topp animation ba saa yoo doon paquet moo tax gis nga tey bu ma ko téyee dama daan mais foog nga mais même combat bu nekkoon njaar sax wala mu daan ma sax damay nangu ni am na ndam. am dafa nekk bandi comme man bandi la comme man ndaxte xam nga tey bu ma ko téyee déplacement bi noonu amateur yu yuuxu fekk boobu gars yi ma ne yaay bul animé bëre ba pare nga soog a animé. mais nag mënu ma ñàkk ma ñu def animation boobu moo tax ko ba ma tojoon nen yi ñetti nen yi ko koree ba ma ko appelé baa ngi ree sama biir xol ndax xam naa boo xam ne waaye nag garaawul naa ko gasoo moo tëgg combat bi ma dem ba këram jox ko avance de nee naa ko gaynde fu ñu jaar maag moom dinaa jaar nga moom nag dama bëgg a monsieur le président Macky Sall maa ngi ko nuyu à passage bëgg naa nag bu recevoir yemb ndaxte yemb vraiment këram bi am ndox bu doon sama sago mu sagal ko quoi mu may ko benn benn terrain boo xam ne si mën a sutur ndax nit ki tamit nekk di animé seen làmb ji ku dëgg bëccëg loolu ma nee am kër gannaaw ah, bu rëy te loxo bu dugg sama biir ngeen ma ne ko ah, ma pas vraiment dootu mu bëri mu koy mu ne nii muy moom ma kubéeku boobu tamit ak lu mu ma bala ruus ma taal benn ma bala ruus xëcc xëccaar fayaat taala ko nuyu à part ma ne ko waa lu xew ñu ne ma ne ko jéeri ñu ne ma dama ko si président lañ jëm yàlla loolu mënta nekk moo tax am na loo xam ne sant yàlla Matar Ba maa ngi ko nuyu bu baax di ko sant bu baax di ko nga làmb dina neex xam nga keroog làmb gi neex def ñëpp waaw xanaa xamul waaw xam man sama kaaje mënu ma ko def keroog ndax xam loolu damaa ma déplané wu rek du ma a def dara mais imagine tey su ma amoon ndam waaw xam nga gars yëpp dañu ma yéene woon ndam doomu aadama du may ndam